Elhadji Seydou Ndiaye leen jàmm ci xibaar yi nga xam moom la ñu xëyandoo yéenekaay bi di Sud Quotidien di ñu xamale kay coowal pétrole yi ne moom ci réewum Sénégal kuréel gi nga xam ne moom la ñu tuddee aar lu nga xam ne moom la doon amal Tidiane Dieng nga xam ne daal bokk na ci ñi nga ne xam ne moom la ñu doon nga xam ne moo am mbirum pétrole moom koy mën nañoo xam ne bii nga xam ne moom la woote woon waaye nag xam nañ bu baax dëgg lii nga xam ne daal moom la xeex muy pétrole gaz bi nga xam ne moo feeñ yoo xam dafa jàpp ne kàddu yeboo mu dallu ji yéene kaay bi di critique du ñu xamal ne kay moom sëriñ Bassirou Gueye gannaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati ne ko moo di dig yéene kaay bi du ñu xamal ne boo fekkee bu weesee kele door mi xam ne demoon na fa moom kele sax ba mu eggee dañu koo dégluwut sax yéene kaay bi du ñu xamal ne kenn koo xam ne teg na fa tànkam direct info du ñu xamal ne ci wàllu pétrole jëmunu ci nag jot na njur leeral ko ndax vox populi di ñu xamal ne xalifa généralu xaadir Cheikh Bekay Kunta yëkkati kàddu jëmale ko ci lépp loo xam ne nag jëm na ci pétrole yi nga xam ne nag moo am ci réewum Sénégal ak coow yi nga xam ne tàmbali na ci moom sëriñ bi Kunta di ñu xamal ne réewum Sénégal wuuta nangu daal coow yi nga xam ne daal moo am ci réewum Sénégal ndaxte boo xoolee bëri na ay réew yoo xam ne wàllum pétrole moo ko taal ba mu tàkki jëppee réewum Sénégal war nañoo mën a moytu lu ni mel kàddu yi nga xam ne keneen yëkkati na ko yéene kaay bi di ñu xamal ne mooy Farba Ngom moom meeru añam bi kàddu yu sant tàng jër la yëkkati jëmale ko ci nga xam ne nag moo di Cerno Alassane Alassane Sall ak ki nga xam ne nag moo di Abdoul Mbaye kàddu yi kay daanaka da a xas lu nekk mu sulli leen ko ci ab émission boo xam ne daal nag moo am ci réewum Sénégal journaliste bi nga xam ne moo fa defoon reportage ba bu fekkee ne Serigne Bassirou Gueye da koo soxla bu yeboo mu dall ji waaw xam ne boobu journal jamono gannaaw ba mu defee mbir mu ni nga fi nga xam ne nag moo di Nigéria yéene bi ko jëmale ko xam ne nag da koo jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee Abdoul Mbaye ak ki nga xam ne nag moo di Thierno Alassane Sall Le Soleil yéene kaay du ñu xamal ne njiit réew mi président Macky Sall ji daa kontaan waaw njiitu réew mi bég na ndax ndax chantier yi nga xam ne daal moom lañ doon amal neema terre bi mooy terrain express régional bi gannaaw visite de chantier yéene bi di ñu xam mbir ma na muy doxee mu mel ni nag neex na ki nga xam ne nag moo di njiitu réew mi di Dakar Times di xam ne daal ñoo nekkee ci réewum Sénégal jamono ji mer bu futt la ñu def li ko waral moo di ne douane bu Sénégal dañu ko yokk yéen i kaay bi di ñu xamale ñoom commerçant yi kay loolee la ñu ne mënatuñu koo dégg daal di i gémmiñ di wax xamal ne commerçant dañu xam ne ne mbir moomee bu fekkee ne daal dellu wuñ ci ginnaaw mbir la moo xam ne daal ñooy consommateur xam ne mooy wëy jëfandiku yi dana leen indil ay jafe-jafe inna lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun yéene kay bi réew mi quotidien du ñu xamal ne Serigne Saliou Samb taskatu xibaar bu mag ba génn na àdduna kay démb ko xam-xamam waaye tamit jàngat yu am solo yoo xam ne nag da doon def jëmale ko ci wàllu politique yéene kay bi dañu xamal ne borom xam-xam ba dem na ñu koy ñaanal nag ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fii mu jóge moom docteur Serigne Saliou Samb